ne danoo fas yéene ñu kuréelu doxu safar ñëw jéem barkeelu ci liggéey bi nga xam ne sumb ko jëmelu ko ci li ko Serigne Touba dénk te moom ci boppam di Serigne Touba tey sëriñ bi moo ko gën a leen kon nag ñu leen ñaan yëpp nag suñ borom kii moo leen kon ne ñëpp daal seen loxo ne ñëpp taal seen bopp yàlla taal seen bopp nee na amuñu doon waaye buñ ko fas yàlla. ne ñëpp taal seen bopp yàlla taal seen bopp yëpp buñ doon koy ñu may jóor yi ci des. آمين آمين waaye di sàkkuwaat ñaan ci moom ngir euh, yëg googu ñu yëg sëñ bi dund googu ñu dund sëñ bi te di ko jaarale ci noonu Euh, bu nuy màggal ndax kenn ku ci nekk ak nangay ngay màggale kenn sañ ta taxaw ne sans sa gën bu kenn euh, kenn ku ci nekk yàlla daa bind te yemalewul kenn ku ci nekk ak na nga koy defee yàlla dogal na ñun noonu lañ koy dundee te noonu lañ koy defee mu ñaanal ñu ñu am kattan boo xamante ne dinañu may ñu gën di ko mën a def ndax ay soxna dinañ ko def am na ku ñuy àndal koo xam ne am na juróom benn fukkaat ak juróom te ku ko ni woon tey doo dox mu nangoo xeex ak yow kon loolu euh, dañ ciy soxla ak ñaanam Euh, ba yéene yi nga xam daal am nañ ko ci barkeelu ci euh, coono yooyu nga xamante ne jéemoon nañ ko teg sëñ bi ba mu waral euh, bis bu màgg boobu ñun ñi suñu bopp saa yuñ ca yeggee ñu cay ñu tey ñu tey dugg def suñu wàll ba yëge ko noonu dunde ko noonu ba yegg si fi bokk ak nag suñu yeneen mbokk taalibe yi moo xam ñoom ñoonu mag wala nu mag leen ñu bokk kook ñoom sant yàlla ndax bis boobu la ko sabab nag mooy suñ suñ sëñ Touba dafa ne suñu borom nan ko ko ci sant le sant sant Serigne Touba ndax boo xoolee li nga xam ne moo andi doxu safar mooy 18 safar te ku nekk xam na ne bisu màggal gi nekkul bis bi sëriñ bi ñibbisee ñu koy ganale waaye bis bi muy dem ci coono yi la moo tax ñun dégg-dégg boobu lañ am ñu ne kon buñ ci accès lu mu néew néew danañ barkeelu ci coono yooyu moo tax ñuy doxee dakaar ba Touba am na leen lu am solo loo xamante ni mu ngi ci biir dox bi nekk na dañuy doxee dakaar rek ñëw Touba waaye itam dafa am social boo xamante ni dafa nekk ci biir dox bi ndax mboolem dëkk yi nga xamante ni danañ fa romb danañ xool ku ci mboolem loo xam ne am nga ko ci ay jafe-jafe rek danañ fa taxawee taxawaayu taalibe Serigne Touba ngir saafara loolu. moo xam nit ku tawat ndax am na benn ambulance bu ñuy àndal boo xamante ni képp koo xam ne gis nañ nga am jafe-jafe jàngoro. am na ñoo xamante ne ñi ngi ci biir seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu faj danañ la faj su fekkee dafa aaj ñu yóbbu la hôpital ambulance moo lay évacuer yóbbu la hôpital li nga xam ne itam mooy frais yi nga xamal ne moo ci war lépp kuréelu doxu safar moom moo koy tegoo beneen bi ci des dëkk yi ñu romb moo xam ay jàkka la moo xam ay daara la te xam ne ñi soxla nañ ay ndimbal dox safar danañ ci dugal seen loxo bu baax a baax maanaam suñ nattoon budget bi nga xamante ni jëloon nañ ko jugee Dakar ba Touba suñ la ko waxee waaye comme sëriñ bi moom boo ci defee da koy xeeb ba doo ko bëgg a tudd loolu moo waral loolu waaye daal di leen wax ne dox bu am solo la boo xam ne ki nga xamante ne moo xalaat xalaat bi mooy jàmbaar jii di Cheikh Talla la may sàkk ko ñëpp ñaanal ko bu baax a baax ak mbooleem kuréel gi yëpp ndax leen képp moo ko tax a jóg fas yéene barkeelu ci bis bu tedd bi Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul ci tënk daal jërëjëf almouridiya jërëjëfati Serigne Touba